لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على من بعث معلما سيدنا محمد صفوة بني عدنان وعلى آله وصحبه أهل الإحسان wa radiyallahu an baqiyati salaf wa qudwati alxalaf faxri diini wal watan mawlana al abdil xadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul sëriñ bi ak kàddu yu yi may yónni ci bokki taalibe yëpp ak bokki jullit yëpp te ñu xeebu lool xeebu lool ci jottali ko ci ni ñu ko war a defee waaye ni mu ko waxee léegi rek ñu jéem rek suñ kem kattan ndax kàddu yam daa wax ay kilifaam rek benn baatam moo gën suñ junni baat foofa la ko suñ borom teg kon ñee ñëpp di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax dundam gépp fii mu wax ci liggéey ak sëriñ bi foofu la ne dundam gépp ak jaamu yàlla dundam gépp liggéey Sëriñ Tuubaa képp la ko doy sox doyoo ko leneen kon yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak kàddu yi nag li si jiitu mooy nuyu bokk jullit yëpp ñu bokkal lislaam ji yëpp di nuyu itam bokki réew mi yëpp di nuyu bokki taalibe murid yi nga xam ne nag ñoom la sañ a sañ leen tere ci bis bu màgg bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne li doon sabab si mooy sëriñ bi dafa def li i'tikaaf fii ci jàkkee sëriñ Mbàkke Madina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ànd ak waa ahlu badrin yépp sëriñ bi nag ba leen gise amatut jàmm amatut dara lu muy xalaat loo lu may xemmeem seen cëriñam mu wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama yitte jëpp la mooy bokk ci ñi rasulullah xamal ko ne ko ñii de bokk ci ñoom faat na ndax lu ko daa maye daa jeex mooy tuur deret tuur deret amatut kon li fi des mooy jihaadu nafsi jihaadu nafsi boobu nag mu wax ko ne ko dañ la teg natt yu métti yoo xam ne dana diis lool yoo xam ne yeewaan na xam ne buñ ko ko tegee mënoon naa nekk wàllu àgg ci yàlla waaye da ak mën naa dem bëri ki ko wat sëriñ bi ne ko roogi de laa bindut ba xam lu mu attana lu mu attanut waaye bu ko attanee rek jom ji ko mu ne natt bi kenn du la ci dimbale kenn la jàppale mooy astaxlisoo li nafsi waaye sëriñ bi daal di sartante mu sarte moo ko ne kon nag ñaar dana ci am dëkk bii nga nekk muy tuba da nga koy daal di génn ndax yaa ñaanoon sa borom ne ko bu fi wenn bu wenn ay mën a tabbi kon aw ay mun laa jugee di fenn di la fi tab di la fekk ba jaris it am na sa waajur ñu wax Serigne Bousso bi mi ngi dund te nitu yàlla la te mi ngi jëm jël ay ñaan ko jëmee ci yow li fi mi ngi dund nattu bi duma ma agsi ci moo tax Serigne bi daal di génn dëkk bi dem Mbàkke Bari ngir xaar fa natt bi nattu bi nag Serigne bi def ko rasulullahi xamal ko ne ko natt bi ne mboolem shayaatinu insi wal jinni yëpp lañ lay booleen muy nattu yu saahir ak nattu yu baatin saa su bis bi agsee nattu yi ne tegoon de dañ koy fulaat ba mu yokk sëriñ bi di ko dékku di ko dékku di ko dékku ba samaani xëy jinni yi mat ba nattu bay jeex nag ci at mu mujj ma sëriñ bi wax ne rasulullah da ko xamal ne ko mboolem shayaatinu insi wal jinni yëpp maase nañ dajaloo. ngir jéem a seet nu jëme ci sa ji te yaakaari mbooloo duma ma ko tas kon nag na nga seet nooy def sëriñ bii nee na mu am jëmi jéem a dékku natt bi nee na ba bañ songee jëmm ji ba jëm si ci moom nag alxuraan soppaliku jëmm dox diggaw ñoom suñ boroom xamal ko ne ko foofu la na nattu nattu bi nattu bi di jeexe waaye li ma la ci faye mooy waa banu Israayil yi ngay jamonoonteel yëpp ndax ku yàlla sàkk ku ne bind na këru àjjana bind la këru sawara mboolem waa banu Israayil yi ngay jamonoonteel yëpp seen kër yi ñu leen waajaloon yëpp may naa la ko Serigne ko defaat naa ko addiya saxaaba yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne ko man de dara du jóge ci man di dellusiwaat. sëriñ bi nag ne ko kon dencal ma ko ba ëllëg ndax sama waa kër bopp yi jombale naa leen àjjana juñ xaroon kenn di leen ko jox ñëpp laa fàggul àjjana kon nag dencal ma ko ba ëllëg bu demee ba àgg bis penc képp ku ma ci war dimbale ma dimbale la ci kon sëriñ bi kenn mënu koo fay lii jaada rabbi bil manasili lada taxarrubi mutayiban lil da inni jahaltuha hadaya lilchahab radiya anhum man xamaani han chahab kon mooy kër yooyu nga xam ne joxoon ko kon nag bis boobu mooy bis bi nga xam ne ci la sëñ bi digle ñu sant la ko ci yàlla wax ne nag ko ci ñëpp sant la yàlla le tàmbale ci ganaar ba ci gileem lu ci waay mën na ko ci defar dan nag mi ngi dajeeg ajjuma ñaar fukki fan ñett ci weeru ut wii eh, sëriñ bi neen moo koy fàttali ñëpp di ko yëgal bokk julli yëpp. di ko yëgal bokk taalibe yi nga xam ne nag ñoom la sañuy digal sañ leen tere di ñaan nag bis bi ñu àgg ci ak jàmm ndax xam ne ne Serigne Touba bisam bi ñëpp a ko bokk mboolem ko di julli rek ndax ni mu ko waxee rek wahabta lii kaw na jamihil awliya ahibati fii ka ananta nayliya def nga ci mboolem ko xam ne wàllu la rek ak cofale sama digga moom loolu nag moo sar ba àdduna sépp maase ci bëgg ko kon nag sëriñ bi naan mi mi ngi ciy soññ bi yëpp di leen soññit ñim sa ñi mu bokkal di leen sant ak mboolem ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoon ak sëriñ bi ba sëriñ bi defal leen li mu leen defal di sant mbokk taalibe yi ci liggéey sëriñ Tuubaa bii nga xam ne ànd nañ kook moom te li ci mujj ñu nekk ci ba ndëgg mooy daare Cheikh Khadim ji nga xam ne tàmbali woon na ko ba sori na ba la ci des bëriwut waaye ba ndëgg ni ñu ngi ci liggéey ba mu ngi leen di sant ci li weesu lépp di soññaat bokk taalibe bi yëpp ñoo xam ne liggéey bi du àgg ndax murit moom du wàcc du noppalu ndigal lu jeex rek leneen ak siwaat kon nee ne mi ngi soññ bokk taalibe bi yëpp ak ñu bokkal sëriñ bi ak ñu bokkal yoon wi yëpp ni mu sant bokk jiit yëpp nag ndax moom xam na ne fii mu toog dafa doon sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi ñëpp la fi nekkal la sëriñ Tuubaa doon naan naan yaa malikal mulki yaa man jalla an xawdin irham jami'al wara yaa hadiyan radaa foofu la toogee mooy nekkal fi adduna sëpp kon mi ngi ko yëgal adduna sëpp di ko yëgal bokk julli yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu samini llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu biya wali nafa li gayri llahu qablu sinda